di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul ci suñu jaamu yàlla yépp di ko ñaan subhaanahu wa taala mu sàmmal ñu suñu kilifa gi yàggal ko fi muy cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu wa ayadahu wa nasara nu fas yéene ñëw waxtaane lu jëm ci dunduk sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne bisub suba bi lañuy màggal guddik feeñam ci jamono sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom subhanahu wa taala ci mbaaxam dañoo tànnal ay mbindeefam yoo xam ne da leen a matal sëkk sellal leen waaye yónni leen ci jaam ñi ngir ñu wan leen aw yoon ngir ñu xat leen ngir ñu nekk seeni royukaay musal leen ci lépp luy tax ñu fañ leen matal leen sëkk ki nga xam ne nag moo ci mujj ci yonent yooyu doon ki suñ boroom tànn mujj ko yónni ab yonentaam ëmb mboolem risaala wala yonent yi nga xam ne jiitu woon nañ ko muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag suñu borom daf koo tànn matal ko ci bind matal ko ci ay jikko matal ko ci lépp matal ko ci biir matal ko ci bitti moo tax mu mat royukaay sëkk suñu borom digal ñu ñu roy ko moo tax Sëriñ Tuubaa doon ko tagg ne wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura wala yura fi chiyami mat na sëkk ci ni ko suñ borom binde waaye mat na sëkk ci melokaan yi mu ko melal ak jikko yi nga xam ne jox na ko ko def na ko ci moom moo tax ku mel ne moom musta ñëw ci lu jiitu waaye ku mel ne moom du mës a ci li ci kanam ci jikko yi nga xam ne ak melokaan yi nga xam ne suñu borom jagleel nag ko waaye genn wàll rek la ñuy tey wala benn tomb ci li nga xam ne dañ ko war a roy ci moom te muy lu ñu aajowoo lool ci jamono ji ñu toll ak jamono yu mën a doon sax ak barab bu mën a doon mooy ay teggin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moo ko yaral boppam def ci moom ay teggin yoo xam ne feeñ na ci ay jëflanteem feeñ ci képp koo xam ne jaxasoo naa moom teggin yi nga xam ne am na ko diggam ak boroomam lu yaatu la yu mat sëkk la waaye teggin yi nga xam ne am na ko diggam ak mbindéef yi ñu man ñu koy nettali ci siiraam teggin yu mat a roy la yu ama am solo la yu mat sëkk la loolee nag ci la ñuy jukki tuuti rek ngir wane sallallahu alayhi wa sallam nim ay teggin foo xool wet goo xool rek gis nam ca doxale nam cay jëflente da ngay gis da gis teggin yu mat sëkk sallallahu alayhi wa ndax moom ni ko imaam al-Qurtubi waxee ne yàlla da koo tànn ba muy ndaw méngoo ay mbiram méngoo ab yaram yaral ko boppam bàyyi ko ak kenn loolaa tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musta bëgg lenn noo xam ne ay jëf la yoo xam ne jaahiliya doon nañ ko jëf melokaani jaahiliya mooy la jiitu lislaam ca la nga xam ne ak jeng la ak matadi la lenn mësu koo dugg mës caajaar suñ borom moo ko sàmme noonu ngir mu nekk royukaay ci doomu aadama yépp dajale ci moom mbooleem luy ay ab taar luy yiw luy ak mbaax luy ay teggin yi nga xam ne mënees na ko joxe ci ak misaal ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa ci nin amee woon ay teggin nin doon sàmmanteeg ay teggin ci fu mu mën a nekk loolu yu bari na la waaye dañ ciy tudd lenn rek bokk na ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu mosaa yegg du fekk aw nit ci biiru néeg wala biiru kër mu yegg si rek ne bañaax ci biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mosaa jubu bunt wax nañ ne da daan teggu ca wetug ndeyjoor ga wala wetug càmmooñ ga daal yëglu su ñu ko joxee ndigalul yegg si mu daal di yegg si suñ ko joxul ndigal bu déggul dara daa di ngir ay teggin sallallahu alayhi wa sallam loola abdullahi ibnu busr moo ko nettali nee kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida ata du taxaw jàkkaarloo bunt bi walakin min ruknihi al aymani aw al aysari wa yaqulu assalaamu alaykum am na benn riwaay boo xam ne dañ caa tegle fa ida uzina lahum wa illan sarafa kon loolu la bare woon ay teggin ci teggini yegsi ci ay doomu aadama jox leen cër jox leen teggin ba doo agsi rek dugg ci seen biir ca joxuñu la ci ndigal waaye bu mosaa di nuyoo wala am kuy ñëw di wax ak moom teggin yi mat sëkk la koy won sallallahu alayhi wa wax nañ ne kenn mus ñëw am loo koy wax mu sëgal boppam nga sëgal sa bopp di ko waxanteeg moom ci lu kenn yëgut bu yonent bi njëkk a sigg ca kay wax ak moom noppi ca la muy wax danaan tekk di ko xeraw lu sëgg déglu ko ba kooka déy ko la mu koy déy ba siggi nga doo ko siggi ngir teggi ñu bari waaye noonu la daan defit ku ko masaa jox loxo du rocc loxo mukk sallallahu alayhi wa sallam te kooka njëkkuta rocc loxoom ngir ay tegginam yu bari loolu anas moo ko wax ne nga xam ne moom yonent bee ko yar mu yàgg ak moom lool ne gisuma mukk maa raaytu rajulan iltaqama uzna rasulillahi sallallahu fa yunaxi rasahu xatta yakuna arrajulu maa raaytu rajulan axaza bi yadihi fa taraka yadahu xatta yakuna arrajulu huwa alladi waaye noonu la amee woon ay teggin ci ñuy toog moom ñi daan jaxasoo ak moom kenn ku nekk daan jëflanteeg moom ca yëg-yëg bi nga am ci moom ak tolluwaay ba nga am ci moom am na ñu ko amaloon kersa lool waaye da ci daan bàyyi xel rus gi ñu ko rusoon loolu sayyidina Aïcha radiyallahu taala nettali na ko nee na yonent bi mas naa toog ci sama néeg nee na tëdd bu mu tëddee am na ay cër yi feeñ ci moom nee na Seydina Aboubacar ñëw yëglu yonent bi ne ko bisimilah yegsi mu ñëw wax ak moom la muy wax ak moom génn ci taxul mu soppi nam tëddee woon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

kon ci tegginu yonent bi sallallahu alayhi wa Sayyidatuna Aïcha nekk nekk nettali na ci jotaay boo xam ne moom euh, moo ko fekkee wax na bi Seydina Abubakar ñëwee yonent bi taxul mu soppi na mu toogee woon da ko dafa nuyoog moom moom la muy waxtaan ak moom Seydina Omar ñëw mu def noona waaye ba Seydina Ousmane radiallahu anhum jamian yëgloo yonent bi dafa jukaat toog daal di yekkal ay yéreem ba ñu génn ba mu waxee moom la muy wax ba génn sayyidatna Aïcha laaj ko waaw lu waral soppiwul ab jotaayam ci ñaar yi njëkk ñëw waaye bi sayidna Usmaan ñëwee mu soppi ko yonent bi tegal ko ci ne ndax duma rus koo xam ne malaaka yi dañ koy rus ci beneen xadis mu ne da ko nag da ko ne Usmaan dafa bari kersa lool ca bañ ragal naa su ma fekkee ci melokaan wii dana am kersa ak lam ma bëgg a wax duma ko wax kon ñu gis ci kersa gi nga xam ne Seydina Ousmane ëmbal na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi xel loolee ba tax mu sédd ko loolee ko sédd yonent bokk na ci ay tegginam yu bari saxaaba yi li ñuy doon ñoo xam ne moo leen fi ku ko ci mosaa woo ngir mu ñëw yegg si këram ngir mu teral ko ci xéewal kon lu ñu war a jëfandikoo bu amee ku bëgg ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi dana tàggu ka ko woo ngir ndax mën naa ànd ak diw loolu yépp ay tegginam la te bu demoon it kooka mbégte rek la cay àndal te loolu abu mas'ud moo ko nettali radiallahu anhu ne dafa am ku ñu wax Shuayb koo xam ne dafa amoon ku koy defaral ndawal mu sàkk woon mu ne koon nag ma defaral ndab loo xam ne juróomi nit ñoo ci war a xéewlu ma woo yonente bi sallallahu alayhi wa mu juróomeel nu ndax seetlu naa ci moom kat ne gëj naa xéewlu ba mel ni ku xaw xiif ba mu ko wooyee yonent bi jóg am ku ko jóg ngir topp ko waaye da ko tàggu dana ko ah daa mel ne dafa bëgg ànd ak noonu ndax danga ko ci jox ndigal mu ne ko waawaaw kon loola ay teggin la yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi jàngale na ko waaye ku ko mosaa taajal aw ñamit bokk na ci aw teggin du ko ay bel mukk ci ay tegginam bu gisee la jubbu na ko mu xéewlu su gisee la jubbu ko mu bàyyi waaye du fa nekk koo xam ne sonn na xëy suba ba bëccëg ñëw taajal la dara tegloo ko ci lu bari li nga taaj nangam nangam loolu du ay teggin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci ay melokaanam ya mm, daawul ayibal mukk aw ñam wuñ ko taajal waaye tegginam yooyu bàyyi woon na ci xel ndaw ñi lool gone yu tuuti yi da leen a bàyyi woon xel lool ba tax na da daan sedd cër da daan sédd cër fu mosaaroom ba ay gone da leen di nuyu loolu ma anas radiallahu anhu ibn malik nett li na ko nee na yonent bi sallallahu ñëw na ci ay gone fekk ñuy fo mu nuyu leen waaye am na jotaay boo xam ne moom it yonent bi sallallahu alayhi dafa nekk ci ab jotaay ñu indi ko ak naan mu naan ca ba noppi waaye ndey jooram as ngone fi nekk càmmooñam mag ñi nekk fi waaye ku ne xam ne yonent bi sallallahu alayhi da daan jiital ndey joor mel ne ki nekk ci ndey jooram ab cëram la waaye li ñu doon doon gone da koo tàggu ne ko ah ndax man nga maa may ma jox mag ñi waaye gone ga ne ko ah cër teraanga cër bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dina ko bàyyee kenn loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jox kon loolu day wane rek teggin yu bari yu yonent bi sallallahu alayhi amoon yoo xam ne daane ci bàyyi xel ñëpp waaye loolu mu doon amoon ay teggin ak gone ndaw yi teggin amoon ak mag ñi da daa fis lool màggat ñi da leen daan bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu ngi natt ne bi fatxu makka amee bim fatxu makkata ba jóge Madina ñëw nga xam ne su muy ndam lu rëy rëy ñépp di ñëw Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu dafa indi waajuram kon boobu mag la lool bi ñu yegsee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko da ko ne te nga war a bàyyi sëñ bi moom mu toog ma ñëw fekki ko nga xam ne ba mag la mu ne ko te nga woon koo bàyyi ca kër ga ma ñëw fekk si ko kon loolu ay teggin la ñoom ëmbal mag ñi waaye Seydina Aboubacar ne ko ah moom kat moo war a ñëw <coughs> ci mu yëg fekk si la ñun bàyyi woon xel mag ñi tax muy digle ñu a yàggal ak julli lool julli koo xam ne ay mag dañuy nekk ci biir ci loolu Abu Mas'ud al Ansari moo ko ma sox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñoom di léeg-léeg du ma julli si ndax fajar ndax yàggaay goo xam ne diw bu dee julli ak julleem day yàgg lool waaye nee na kero yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy waaraate waaraat na waaraate yoo xam ne mer moom ca ànd néew na néew na ñu gis ko ci moom ca la doon waxee ne yéen day daa mel ne da di dàqe da ngeen di tax nit ñi foñ seen diine képp kuy julleeti na digg dóomu ca julli ga na bàyyi xel ne ña jiite am nañ ca néew doole am na ci ay màggat am na ci ñu ci am ay soxla ay aajo kon loola bàyyi xel gum bàyyi xel mag ñi tax na li julli màgg-màgg eh, mu bàyyi xel ne ku koy def ne sédd nga ca ginnaawam ci ay mag di dénk ndaw ñi ñuy teral mag ñi wax ne bépp waxambaane woo xam ne teral na mag ngir at ya mu am yàlla su suñu borom subhanahu dana ko tàggatal ku ko teral bu màggee kon saa boo teralee mag ngir ay atam saa boo yëggee ca at yooyee suñu borom dana la booleeg ñu la teral kon loolu lenn la rek ci teggin yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi amoon na ko daan ko doxe daan ko waxe waaye loolu lépp ngir jàngale ndax moom kat ginnaaw suñu borom subhaanahu wa taala dañoo wax ne mooy royukaay bu mag bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axira wa dakara allaha kathira kooku kon bu ñu yëgsee ci bis boo xam ne dañuy fàttali ko ak feeñam war nañ ci bàyyi xel bu baax jikko yu yaatu yooyu yu bari yooyu waaye rawatina ay teggin ndax bu ñu tollee ci jamono joo xam ne jullit yu bari xamatuñ seeni warugar seeni teggin yi leen war digganteeg seeni mag digganteeg seeni ndaw digganteeg seeni dëkkandoo digganteeg seeni njaboot loolu kon wàll gu ñu war di fàttali la ndax roy ko mooy ñuy jariñ tey moo ñuy jariñ ëllëg te teggin yooyu kat mooy teggin yi xam ne ci la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daan yare bu ñu seetloo suñ mag ñi xool seeni doxalin teggi ni du doon lu tumuranki ndax noonu lañ daan dunde noonu ci lañ doon yar seeni njaboot loola nag waxtu wu nekk lu àdduna soppiku soppiku war nañ koy bàyyi xel ndax mooy tax suñu dund tey teey suñu dund ëllëg teey ku xool ci ñii fi nekk suñu mag ñi nga xam ne yaroo ci keppaaru mag ñi ci yarub Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu loolu rek la ñuy ci ñoom kon teggin yooyu nañ ko bàyyi xel kenn ku nekk góor góor góorgóorlu ci yar ci sa njaboot kenn ku nekk góor góor góorgóorlu tënku ci ndax loolu mooy suñu njëriñ tey suñu njëriñ ëllëg ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu <coughs> boole ñi nga xam ne dañuy jël yonent bi sallallahu alayhi wa teg ko ci seen kanam di ko roy ci seeni jëflante ci seenu yëngutu seenu dal lépp luy nekk ñu di ca bàyyi xel njubut sallallahu alayhi wa kon bu ñu koy fàttaliku fàttaliku jikkoom yi fàttaliku tegginam yi ngir ñu man ko roy loolu dana gën a yokk suñu njariñ ñu ñaan bu baax suñu suñu borom subhanahu wa mu nangul ñu suñu jaamu yàlla yépp lii nga xam ne naan lañ ko ci gàmm gi yàlla suñu borom kàttanal ñu ñu mottali ko tamu nangul ñu ko te lépp lu ñu diggee ci gàmm suñu borom defal ñu ko ñaan Cheikh Mouhamed Mountakha jiite ko yàgg koo jiite at yu baree baree bare bëri suñu borom yokk ko kàttan ak wër <clears throat> ba mu àggale li mu yéene àggale li mu yéene jullit yéene ko lislaam yéene ko àdduna bépp yàlla na ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 أشهد أن لا الحمد لله مدبر مدبر الأمور ومصرف الأقدار الفاعل بما يريد بمحض المشيئة والاختيار نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله الذي بنوره أشرقت الأنوار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام البررة الأخيار أما بعد فيا أيها الناس هذا شهركم الربيع الذي بدا فيه للوجود أكرم شفيع فاعرفوا رحمكم الله لشهركم هذا قدره واغتنمي بالعمل الصالح بركته وخيره واستحيي من الله أن تعصوه أو تخالفوا أمره فإنه من عليكم فيه بالنبي أفضل الإمام وصدقتم به وإن تأخرتم من سلف منهم وتقدم قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون فهذا الشهر برز فيه للوجود نبي لولاه ما تحققت الحقائق ولا وجد شيء من الخلائق ولولا نوره ما أشرقت الأنوار ولا مجد الواحد القهار الحمد لله الذي أكرم آل البيت الشريف بالنسب الطيب الطاهر وحباهم بالحسب الواضح الظاهر والصلاة والسلام على سيدنا محمد آمر الناهي بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد فيا عباد الله العاقل من التزم الوصية التي وصى بها سبحانه جميع عباده فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله تخروا التقوى مجد مسلقا ومتجرا وعملا يوم نجد فيه تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مهدرا فتقوى الله متجر الفائزين وغاية من المقربين القائمين بأمر الله لا يفارقون الذين يتقربون إليه ويتعبدون لا يقطعهم عن مولاه قاطع ولا يمنعه من الجد في العبادة مانع تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون اللهم انفعنا بمحبته ومحبة آل البيت الكرام والقيام بما يجب لهم من التعظيم والاحترام مع أن محبتهم فرض أكيد على الأعيان وشرط في صحة الإيمان يغفر الله لنا ولكم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 xam موسى صحف إبراهيم وموسى الله الله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 ليس له طعام إلا من لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق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 حسابهم الله الله سمع الله لمن حمده الله salaamaaleykum.